Euh, Maître Adama Fall avocat à la cour waaw loolu sax moo waral ñu sàkku waxtaan ak yéen euh, ndax euh, jàpp naa ne ku ñuy wër li ci jaadu mooy fa nga dëkk ñu yebal fa ndaw fa nga dëkk ñu yónnee la fa kayit et honorable député Massata Samb ak Mamadou ñaa ngi nii toog ba fii ñuy wax ak yow du police du gendarmerie du ndawu procureur bu ñëw seen kër indi leen fa convocation et li waral sabab déclaration bi mooy di xamal opinion nationale ak internationale que les honorables députés Massata Samb ak Mamadou Niang musuñu daw ñi ngi vaquer tranquillement à leurs occupations seen kër police xam na ko bu leen soxlaa bu fa yabalee ndaw wala mu yónnee fa këyit dinañ ko wuyu c'est des députés qui sont ñoo xam ne ndaw wu askan wi lañ et respecté nañ yoon respecté nañu liggéey bi nga xam ne kilifa wàllu yoon ñoo koy doxal bés bu ñu leen woowee dinañ wuy ji ci ak anam bu mu munti doonee ak waxtu bu mu munti doonee mais encore une fois ñi ngi vaquer tranquillement à leurs occupations pas plus que ce matin dem nañ assemblée nationale fekkee ji li nga xam ne mooy déclaration de politique générale bi parce que ay député lañ ay ndaw yu ñu yónni lañ euh, seen wareef mooy fañ leen yónni ñu fay xëy saa ne. waa loolu euh, ni ngi koy déggee ci ci ci réseaux sociaux yi di ko déggee ci presse bi rek lañ ko déggee ñu ni ci réseaux sociaux yi ak presse bi. mais li nga xam ne moom moo wér mooy kër Masata ca Tiwaawan kenn gisu fa euh, takk der bu fa ñëw wala ndawal buur lu fa ñëw indi fa kayit ne ko wuy noonu ñu la demee ci fi nga xam ne moom la Mamadou Niang dëkk ca Gandigaal donc nit nag euh, li ñuy wax nit dafa am un domicile fa nga xam ne moom la dëkk ku koy wër fa nga koy seeti ñoom bi mbir mi amee ba léegi euh, dañu amoon euh, euh, ay repos yoo xam ne dañ leen ko prescrire repos yooyu euh, seen i kër seeni i màkkaan ca lañ nekkoon di ko fa def ba mu jeexee xëyaat nañ ci seen liggéey encore une fois ba fii may wax ak yow du kenn ci ñoom ñaar ku ci jot benn convocation pour police pour gendarmerie wala beneen ndaw bu procureur yónni et ñuy dëggal timit ne bés bu police yónnee bés bu gendarmerie yónnee bés bu procureur yónnee ñoom dinañ wuyu ji parce que loolu mooy seen wareef ay député la ñëw fii seen liggéey mooy voter ay loi du ñoom ñooy jalgati yoon waa loolu euh, xëj na euh, waxu réseaux sociaux la euh, dina jafe nga indi ci tontu walla nga weddi ko parce que doo xam source ba ak ña koy wax mais li wérte wér daal mooy ñi ngi nii depuis incident bi am di vaquer tranquillement à leurs occupations et comme ni ma ko waxee léegi tey pas plus que sa matin dem nañ assemblée nationale fekkee ji déclaration de politique générale bi premier ministre doon def. waa li nga xam ne xëj na ñun ñun dañ koy ñaawlu mooy euh, parax parax ak yàkkamti bi ñu bëgg a def ci mbir mi. Euh, mbir am rek ca saasa euh, yow mi président assemblée nationale nga génnee kayit muy presque tuuma ne procureur na leen topp dama jàpp ne kilifa dafa war a tëddee njaaxanaay doon ndey ji seex boo dégloo ñi nga xam ne ñoo xëj na ñoom ñoo ñooy ñoo ñooy ñaxtu da nga déglu it ñi nga xam ne ñoom leen teg tuuma pour mën a am version bi gën ci version yi nga mën ko jébbal procureur peut-être bu fekkee da nga ko war a jébbal procureur et encore une fois may rappeler ne euh, député bu ñu tegee ci moom kiiraayu malaanu kiiraay bi dafa am lu muy tekki mooy waruñu may kenn muy dog liggéey bi nga xam ne askan wi moo ko dénk te tey dafa mel ne dañu woyofal malaan moomu ba ñu naan ñi ngay war député ña ngay jàpp député ña ngay pampi pampee député alors que li sabab immunité dipl immunité parlementaire mooy que député bi mën a ànd ak sagoom pour wéyal liggéey bi ku ne xam na ne assemblée mi ngi en pleine session ñu nekk ci marathon budgétaire nekk ci tey war a euh, déglu euh, premier ministre buñ ci bunduxataal député euh, baatu askan wi la ñuy faagaagal du sax baatu député bi mais baatu askan wi nga xam ne moo ko fi yebal moom la ñuy faagaagal. waaw loolu ay théorie la je pense que flagrant délit euh, ni ko yoon tënkee ak ni mbir mi demee wuutee na euh, xëñ na bu ñu fa yeggee dañ ko gën a leeral mais ni flag yoon tëggee flagrant délit mooy euh, l'infraction qui vient d'être commise mooy li nga xam ne nee na këtt ne jonn wala ki nga xam ne moom la ñu jàpp ne moo ko def ndiiraan da ko topp nekkuñu ci benn yoon ci cas bañ mun a wax flagrant délit Euh, malheureusement nag Sénégal 18 millions d'experts lan ci domaine boo jël moo tax ku ne yëkkati rek comme am na ñu njëkk xëcc ne nañ ko xëcc ci flagrant délit ñu bëri ci seen souteneur di fa wax mais bu ñu tollee ci war koo leeral dinañ ko leeral mbir mi nekkut flagrant délit te yoon dafa ne constitution mi nga xam ne mooy li gën a kawe ci ak ci ak ak yelleefu doomu aadama moo ne député mënoo ko jàpp mënoo ko arrêté munoo ko poursuivre bu assemblée nekkee ci session lu dul da nga yëkkati malaanu kiiraayam donc encore une fois mooy rappeler également di euh, prendre à témoin l'opinion que kenn levewul immunité parlementaire u député Massata Samb wala député Mamadou Niang ah ba fii may wax ak yow seen immunité mi ngi prévaloir may ñaan kilifa yi nga xam ne it ñoo war a doxal mbir mi war ko doxal ci yoon nañu bàyyi xel ne ay député lañ ko seqal te seen immunité ba léegi mi ngi leen yiir bu ñuy yiiree immunité boobu du ñu yiri immunité ñaari ñii rek dañuy yiri immunité assemblée bépp gëdd bi nga am gëdd bi député war a am bu ñu juumee ci lii parax parax yàkkamti ba jël seen immunité seen malaanu ki euh, kiiraay bi bi muur faale ko def lu leen lu leen neex bu boobaa c'est le député qui en danger et loolu ci démocratie waruñ fa yegg. Euh, nos clients sont sont ont tenu à faire cette déclaration pour prendre à témoin l'opinion publique euh, nationale et internationale et démentir une rumeur persistante faisant état de leur fuite. Euh, quand l'incident a eu lieu, les honorables députés Massata Samb et du Niang ont bénéficié de repos médicale Et c'est durant cette période euh, qui ne se sont pas présentés à l'Assemblée, mais ils ont été à leur domicile respectif pendant ce temps-là. Et quand ce délai de repos a pris fin, ils se sont présentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour participer aux travaux liés à la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et je réitère euh, à leur suite qu'aucune convocation n'a été euh, délivrée à ces honorables députés, ni à leur domicile, ni ici, euh, ni euh, à leur bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'une personne déclarée en fuite, la moindre des choses, c'est qu'on vous fasse état d'une convocation qui est restée sans suite ou de recherche infructueuse. Il n'en est absolument rien. Les honorables députés vaguent à leurs occupations et n'ont pas été inquiétés par quelque force de défense que, que ce soit ou par quelques enquêteurs que ce soit. Oui, vous savez, il y a 18 millions de, de, de, d'experts de, euh, au Sénégal en, lorsque la matière intéresse la rumeur ou l'opinion publique. Mais je pense que euh, ce qui connaissent et maîtrisent la définition du flagrant délit savent pertinemment que nous sommes loin de ce cas de figure. Le flagrant délit, c'est le délit qui se commet actuellement ou lorsque dans un temps voisin de l'action, la personne soupçonnée est trouvée porteur d'indices laissant supposer qu'elle a participé au crime ou est poursuivie par la clameur publique. Il n'en est absolument rien dans le cas de figure. Les honorables députés vaquent depuis les incidents à leurs occupations ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été arrêtés dans, le, euh, dans les circonstances et délais du flagrant délit. Et je pense que le moment venu, euh, nous éclairerons quand même la lanterne de ceux qui sont en charge de ce dossier qu'on en situation de flagrant délit. Et n'est pas en situation de flagrant délit, j'invite les autorités en charge de ce dossier à prendre en compte l'immunité de ces honorables députés. Parce que la Constitution, qui est la charte fondamentale, qui organise euh, l'immunité des députés, dit que le député, lorsque l'Assemblée est en session, ne peut être arrêté, poursuivi, détenu qu'après qu'on ait préalablement levé son immunité. Tant que son, leur immunité n'a pas été levée, j'invite tous les acteurs de cette chaîne d'enquête judiciaire à respecter euh, ce, ce, ce, ce euh, comment dirais, cette immunité. Parce qu'encore une fois, si d'aventure on en venait à les juger dans ces conditions, à les poursuivre dans ces conditions, c'est la fonction de député qui est mise en danger. C'est le député qui est dans, en danger. la valeur fondamentale qui est la liberté des débats à l'Assemblée nationale qui sera menacée. Je je pense que Euh, le président de l'Assemblée nationale aurait dû, avant d'adresser une euh, lettre au ministère public, recueillir la version des protagonistes et pouvoir disposer de suffisamment d'éléments pour apprécier les faits de la cause, mais ne pas prendre un parti, ne parti pris, ne pas entendre une seule euh, partie en déduire des conclusions qui ne reflètent pas la réalité de l'incident. Nous avons tous assisté à l'incident. Quand on parle dans un rapport de coup de poing, vous conviendrez avec moi que nulle part il n'a été question de coup de poing. Ben, je pense que euh, sur le, euh, le groupe parlementaire, dans sa démarche politique, a euh, dénoncer ces faits, mais nous nous focalisons sur les aspects juridiques et judiciaires de ce dossier et le moment venu, nous reviendrons en détail sur, sur cela. Je vous remercie. Oui, à, à merveille, euh, à merveille, euh, c'est des croyants avant tout euh, qui appréhendent la chose avec philosophie, qui ont foi en la justice de ce pays, aux autorités en charge de la légalité et de son application. Et donc, ils, ils n'ont aucune raison d'être inquiets. Ils sont là, sereins, euh, participant aux travaux euh, de l'Assemblée nationale euh, tels que euh, définis dans les contours du, de leur mandat de député. nekkoon avocat ki nga xamante ni mooy ñaari député pur yooyu euh, ngeen leen doon seetaan en direct sur Good News la des grands événements xam naa di leen jox rendez-vous prochainement ci yeneen euh, information mais aussi ci yeneen live merci beaucoup